président min def mënu koo def barke yonente yàlla Muhammad xëy na rek lu sotti lu ne am borom. Hmm. mbootaay bu wéy bu ne jekk. Hmm. ay fiftaay fi ma jaar ak président. Hmm. gëwuma nit jaar na fa ak président. barke yonente yàlla ne may jigéen rek jëluma avion jëluma gaal maa ngi fi ci Sénégal yi may xeexee fii laa ko xeexee mosuma tukki. sa say tas 2019 la wax février 2019 ba sama say tas ndax président. Naby boobu sama doom bu ndaw bi aji mii sama doom bu ndaw bi amagul woon deux ans. damay dem campagne Fouta do dem bes bo demé bo ñëm aramal, araamal la hmm? ma ne ko bee nga aramal ma do dem damay dem ma dem ñooñu fase nangu samay do xana du man ma gore la fi am accident da yoonu Fouta di dem accident da yoonu ba fi may wax yoon ni mosuma ko wax doomu adam sama poj bi ay ay ay weñe ci de su dox sa da ngay gis samay sox damay nante lu ken fajuma samay mbokk mo faj Fifta dama galère nag ci président dama ànd ak moom ci ànd ngor moo tax bu ma gisee nit ñi di wax naan ay Fouta Tampi. yaa xam li nga jooy ah, maa yow yaa xam li nga jooy wallaahi maa xam li ma jooy. te Fifta gëmatuma ci kaw àdduna ba sama waajur sa maa ngi tub di jéggalu lii ndax mën naa duna teex nit mën naa defalati nit li ma defal président. Hmm. Fifta président ku waxaa moom 5 heures 5 génn na koo mënti doon. Naby Vision. dem naa ba ay kilifa diine di ma tëkku. gisone ngeen problème MC nya ak man dekk la lu ne dekk na dekk la fi fi ta lu ne amon na ñoo xam dañ ma dañ ko dem ba nawatuñ dekk pourtant du ko bon dekk la dekk ma fu bon doonu ma bon fekkuma bon xeyna bëgg mo metti rek dekk la ñepp ak ma naa dem wax tey dangaa dal ma yey dal ndax dal rek ma war fi ma tollu dekk la wax reey waratuma xasta waratuma te écran yi dinañ ma nomm it ndax xamatuma lu may wax amatuma wax kaddu amatuma ko président tas na sama yaakaar ndeysaan dafa tas sama yaakaar Fifita hmm. tas sama yaakaar dafa tas sama yaakaar du ci am am du ci alal mais dafa tas sama yaakaar ne dama foogoon ne maa moom ma 2035 bu may wax ni dama mel ni ku nekk ci ay gént te di ñaan yàlla yàlla bu mu doon dëgg dina hmm. ma dellu si sa xel dëgg la mënuma ci dara mënuma wañaar loxoom ndax nit ku nit ku xeebu laa nit dong laa doomu aadama dong laa donc koy sant yàlla daal sant yàlla bu baax a baax sant yàlla sant yàlla rek ñu war salaam salaam gaay futa njaay tàmp dama déglu sa interview nga ni Ablaye Diop xaas moo ma jëndal xar tabaski fuuta man dama laa mujjee yëram fuuta juddu bu rëy ndey bàyyi waaye fulla fayda borom Fouta ku xamul sama valeur ma xam sama valeur Fouta Ndiaye affaire gi nga wax a wax ba yàq sa avenir nara yàq sa avenir u njaboot moo ma naqari te amoo si dara. Naby Vision. sa njaboot gi da nga leen amel àq xale yi dañuy màgg ëllëg xamoo lu ñuy doon xoolal sa yaay sa internet bi mu wax xoolal lii. wax ju ñaaw nag yàlla daa danga koo man lool de saltele ko yéen waa waxkati APR yéen a ñàkk fayda Macky Sall kum recevoir sa palais bi amul teral la jox la xaas bu weex tàll yéen ñi sonn si moom yéen ne si terrain bi yéen ne si wax ji bu ñu wootee meeting yéenay daw bu ñu def dara si seen ndaje mu yéenay dem muy recevoir ku ne si àddina ba mu des yéen ngeen continuer wax yéen a ñàkk fayda parlement di ngeen xas naan ministre yi ministre yi defuñu leen dara Macky Sall leen gën a gis ci m si internet bi yëpp moo leen gën a xam iñaane ne leen a dajale sagal leen suturaal leen ndax nit kuy sonn si yow sax mérito na jaajëf defu ko ngeen topp naan da ngeen di jonge jonge luy daan yu si ko jooy jooy gis nga Macky moom moo leen gën a xam ne seen jooyu dara sëfu ndax jooyu leen ko xaas ngeen di jooy gis nga koo koobale si politique bi mu nekk kon bàyyi bu ngeen réglé da dem liggéey da dil yorutum réew fen yorutum réew liggéey leen xanaa yéen bu ngeen ñàkkee jom gis xale yu ndaw am fulla di liggéey di dara seen bopp ngeen war a mën a bàyyi seen fen yi ngeen nekk amul solo defende yëngal aras ay waay asub jigéen yàggul asub jigéen yàggul dafa gaaw ay way gumba no sante mu ni wele ay futa njaay tan bi ñak ko jom de laa la xamé ak sa xef fi gudd ak ni mala gisé gisee néew la la xamé futa ak sa duñu reuy la la xamé sa bakkan bu reuy sa yu Sini ni ma la gisee ñàkk jom si ngay dee futa njaay tam ay eh, buñ ne la jooy looy jooy futa njaay tam amo amoo amo amoo si puno hmm? sa gàcce gi wër na si àddina yow Macky Sall loo si am ña yore milliard jooyuñu ña sa yore oto jooyuñu yow nga ne yaay jooy yow daa man nga ni lu ñëw faaw nga waree sa bopp ak sa gémmiñ ko taawee ko gi mel ne yoon futa xamal sa bopp da dangaa yore doom def nga leen fa woy wulu fay seen yaay dàq dul ci réew mi yaa ñàkk jom yow ni mu la jippee yàlla ma ko yàlla jéggal ah. Naby Vision te plateau yi naan gërëmee président Macky Sall ñu gërëm ko pour lan ndax fu ne gi ñu teg loolu lañ ko war a gërëmee loolu lañ ko war a gërëmee ndax en gi mu duggal suñu diggante Sénégal Sénégal bañantoo loolu lañ ko war a gërëmee wala dañ ko war a gërëmee ndax gi mu def ci ñun wala dañ ko war a gërëmee ndax lim ñu marloo war nañ ko war a gërëm loo ndax ñàkk yërmande gi muy yoree war nañ ko war a gërëm loo ndax mettal gi mu dëkkee ñun wala ñu ko war a gërëm loo ngërëm ndax suñu jooy moom daf ñoo jooloo ñaata yoon ki gën a bëgg ci réew mi Seydina Ousmane Sonko mu teg ko fitna di ko agressé di ko mettal ñu di ko jooy suñu kër ñi seen njaboot gi wër leen ñi seen jëkkëri tiim leen ñi seen jabar tiim leen ñu di ko jooy loolu lañ ko war a gërëmee loolu àqaal la suñu diggante ak moom te yomal xiyaam danañ ko fayantoo ak moom ndax yomal xiyaam amul sëriñ amul président ñëpp yem fa yàlla kantaan ak rajo dañuy ci dëkk bii di jooy rajo ji mu sële ñu seen i jooy ah xamum rajo sax dafa naqalee ñoral waxuma laa rajo gu jigéen gi ngeen di jooy ak seen i kanam ak seeni façon kanam yi wuteeg seen i façon maquillage seen kanam yu ras dima leen seen jooy ñu naan na première dame yëgu ko woon yow jigéen nu mën a yeewoo sa jëkkër man li mënoo comprendre président mooy lu tax nga bàyyi ba léegi bàyyi ba léegi ñu ci mois février waaye ba léegi door ñoo mëna annoncer li pourquoi annoncer woo ñu ko woon depuis boobu lu da nga bay ba léegi ñu ko annoncer pourquoi lu da nga ñu dugal duna loo yaakar ba léegi ni door ñoo mëna jël li rek nañu ko neere brusquement comme ça président ndax boo tay di nga nelaw président ndax yow tey Lutanga tëddee di nga nelaw lu tax nga bo ba nga ñu lo yaakar bay ba ñu ngi ci joué même pas cinq mois lu tax ko bu yàgg bi nit ñi di wax di lam laay ba lu tax boobu ba tey waxoo. Vision. nga bàyyi ba léegi nii léegi nii léegi nii président bi ñu door wax ba soo def lu ñu metti de def nga ñu di président man de mënuma la bal, baal barke Mouhamed barke Salaatul Faatiha mënuma la koo baal ndax président ma soo sama café. ma soo xorom sama cin bëgg ku sincère laa ànd ak yow bëgg la te rek yàlla rek tax même bu dul man ñeneen bëgg dañoo bari président waroo jël nii rek brusquement nii rek defee ñu ko nii dafa ñaaw ku la na li nga def nii ànd na ceeg yow wala ni ko defal nii nii la président dala wax lu la neex Naby Vision am candidat ñu naan deuxième quinquennat fu ñu dem di wax ñuy def ay ay meeting wii au troisième wii au deuxième quinquennat ñoom Doudou Ka di def ñoom Farba Ngom dem Matam ñeneen ak ñeneen di ko def Fatick fu ne ñëpp a dundee yaakaar nga bàyyi ba jour ba moyen jour ji moyen nga ñëw nga ne ñu duma ko def. Naby Vision. defuma. ça Mauvais conseil le conseil est non, là, non. Sall gars.